dama koo defal suma yaay dama koo defal suma papa yaa ko mun a taxawal sa boppa nga amal ko sa boppa nga mun koo dem dem dimbale sa sa mbo sa mbokk si ak sa waajur si biti waaw. comme loolu ni nga ko waxee léegi yow ñu gis ne antigé Nioro fu mu nekk ndax boot bu leen boot nii yéen amu leen benn jafe-jafe gis ngeen ne féetoo na leen yaay féetoo na leen bàjjen boo xam leen ginnaaw féetoo leen kanam ndax yéen fil ngeen confortable ak moom bu baax ba baax apprécié ngeen nu mu leen téyee fii nii si salon nañ ko bu baax. duñu wax ne comme euh, duñu wax ne su suñ anti la suñ yaay la boot nañu xol bu set la amee fii soo ñëwee def la di welcome dangaa waxtaan ak moom mel ni comme yaay xanaa problème boo mënta am pour wax soo waxee ak moom dina la jéem a seet ban solution la ko def man man moom personnel suma yaay la problème bu ma mënta am si kër bi sax problème bu ma ta am si kër bi su ma ñëwee sax pour waxtaan ak moom daf ma si dee jàppale dama dee waxtaan ak mu jox ma idea mi ne ma ni ak ni la bëgg nga doxé té dama dee doxé non té dama ci dee gis yokuté wa danga ci dee gis yokuté ñi nga gis ne sa xol nga fess ba sa bëtt yaa ngi xam nga li dafa nees ci xol di liggéey di gënëm sa boss ba sa xol bi fess ni ba nga wara tok di joy kon yow li ngay def sa kanam rek ndam rek ngay am parce que li jafé na xalé jigen yu melni yow tok fi di liggéey di gënëm sen boss ba sen rongoñ di tour jafé na waaye ba légui ñu ngi lay advice ne la li fi nga tiyé fofu la yow bu ko xé benn yoon ba paré yow lan ngay say moromi jigéen yi nga nekk si biir salon bi lan nga leen di dénka pour ñoom tamit liggéey yow toog bi nga toog nii am si confidence am yaakaar si sa liggéey bi lan ngay wax sa moromi jigéen yi nga bokkal si salon bi. ñu mën naa wax rek nañ góorgóorloo yëpp dina baax su nga war am ne lii lii laa bëgg a def te fii laa bëgg a moom su soobee yàlla di nga moom ku nekk bëgg naa am baraw anti faatu te anti faatu dina ba mu xam ne ah kii de si man na lu ma am ba ma ëppale ku nekk loolu nga ma ñaan te su soobee la yàlla dinañ ko am. dinañ ko am su neexee yàlla dinañ ko am waaye yow Bébé Chile ma lay laaj ndax yow am nga nijaay wala amagoo oncle ba. Eh, amagoo ma waaye yow ku mel ni yow car macha allah yow gis nga sa bopp bu baax. maa waaw gis na ni nga mel xeeboo ko benn yoon de. déedéet xeeboo ko benn yoon. waa sa ko la baax na ma lay laaj mayonnaise ngay diwoo wala bota la. Eh, mayonnaise lay diwoo mayonnaise ngay diwoo waa lu tax nga jonga ma woon kii man lu tax ma jongam. Mm. man rek ci xale. yow rek ci xale laa nekk. laa ilaha yow rek ci xale génjooro nga nekk waa ba léegi xale yi di roy si yow léegi yow fu mu nekk nii yow te ma sëy teel na wala lan naka la demee da nga bëgg a xaar ba sa school bi jeex. fu mu nekk sëy daal. Mm. teel na teelut teel na teelut waaye dafa des comme noo ko yóbboo rek because xam nga sëy jaamu yàlla te kenn du ko mun a jël eh, di di wax ne bàyyi ma jël métier bi bàyyi sëy bi gannaaw waaye lu ñuy ñaan rek métier bi tamit kenn mun ta dem bàyyi ko because amna na loo xam ne soo leen jàppalantee ci kër bi rek dafay dem. dafay dem waaw. waaye yow am nga koo def fii wala. waaw am naa kañ. am nga koo def fii. yii am naa ko ko ah, def kon. man fii laa ko def. ci man rek ñun rek ci si Jongo rek la ñuy def. doy leen bay ah, des. ah loolu loolu foor na yéen a mu ne moom rek ci xale yi Njooro moom doyut bay des man dama tàmm xale yu mel yow xale yu Jongo mu allah ah bëgg seen jël bota maynes bi rek sa ñaanal li nga bëgg a ko xam ba nga ba am yow tamit di ticc xale yi comme anti gay njooro nu leen bootee yal na la yàlla defal sa xool ki nga def nag fii yal naa toog bañ ma oo ma ñëw di leen interview seen mari am a soobee yàlla nañ ñaan rek waaw waa dina baax yal yàlla def jaama baax na waa dina yow tamit waxaat ñu gis nga sa tur baa njëkk ne ko waxee sama foor kon thank you very lii lañ leen fi abeloon jërëjëf dégg nga anti nuyu nañ maa ngi leen di fay. waa anti tey waa Sen Beans TV ñëwoon fi tey pour xool yow tey si school bi naka lañ waaye dugg nañ si biir gis nañ xale yi naka lañ mu ne macha allah api seet nañ liggéey bi seen liggéey bi seet na xale yi wax nañ wax bu rafet si yow wax bu daw yaram am na ñoo xam ne wax nañ ba seen xool fees sax ñi ngay jooy fu mu nekk nii. <laughs> ok sant yàlla la baax sax parce que ubbi jox leen métier ndax bu ëllëgee ñu mënal seen da ngeen ibbi school yi pour jàppale xale yi ak ndaw yi ñoo loo tax ñu apprécier yow li nga def ñu gis ne yow fu nekk jigéen bu mun góor nga yow yow daal fu mu nekk góor yi bàyyi luñ la dara macha allah yaa ngi def loo xam ne si suufi Gambie ñëpp ko apprécier si li nga nekk di liggéey nii ñu la wax ne anti comme yow ñaata yées yaa ngi def liggéey bii nii. ñu ngi startoon fii lañ defoon in 2007 maa ngi nekkoon Angleterre di jàng ma ngi bis si 2005 di di liggéey si banque bi for some time ma gis na def leneen si suma réew ma xalaat leneen pour def na xam ubbi salon mun a jël ñeneen ñu liggéey tam mun a am dara dem ba si biir gi xale yi bari di taxawaalu man a xaaral bon ñu def ko school jàppale xale jàngal leen métier bi ndax bu ëllëgee ñoom ñu mën a gëm seen bopp taxawal seen bopp def dara léegi school bi ñu ko start 2009 février ba léegi ñu commencé school bi ba léegi graduate nañ thousand bi passé tam graduate comme ni nga ko waxee ne every year da ngeen di grab ñu gis ne am na classe one am na classe two waaye ñu si salon si lañ dugg ñu bëggoon a xam ndax métier bi liggéey bi si salon bi rek la am ndax am na yeneen ak yeneen yoo xam ne yaa ngi ko def yoo xam ne bokkutaa saloon bi waa school bi ñaar la am nañ benn fii am nañ beneen Farafenni bi fii de doon gis xale yi taxawaalu si toori saay bi ñu ne leen gërës taxawaalu wan leen am na lu gën loolu mun nañoo daan seen doole am dara ñu def loolu léegi ñu toogate gis ne xale yi dem si yooni gannaaw bi bari nañ si baak wii bi di dee ci yoon bi di aw si géej bi ñu ne naka lañ mun a génnee li ñu ne ba léegi rek gëm sa bopp soo ko defee mu ne taxawal sa bopp liggéey di ñu ko def léegi ñu dem nag ubbi fara Farafeñe bi ñu seetee gis ne dëkk bi soo xoolee liy jógee North Bank mooy boori Farafeñe xale yi bari nañ trop ñuy dem ci yoon bi ñuy dee bari nañ ñu ne bon léegi suñu fa amee school benn ñaar liggéey commencé ñu gis ñu ubbi seen salon yi bopp gis ñu ubbi seen atelier gis ñu ubbi yeneen dinañ wéccee léegi ñu def loolu waaye farfee na school moom mag na ñu ngi faa jàngale ñaw ñu faa jàngale tooga ñu ngi faa jàngale computer ñu ngi faa jàngale liita ñu ngi faa jàngale carpenter ñu ngi faa jàngale cuub taayandaay batik ba pare tamit ñu ngi faa jàngale welding fi ñu toll nii yooyu yëpp nga ne school bi rëy na dañu fa faa def yu bare bare bare bare ndax yow xale yi nga nekk nii di train ndax yow fu nekk suñ si paree ba graduate ndax dañ ibi salon ni boppa wala naka la demee ndax suñ paree ñoom dañ jee yow si janga bi janga leen jàngal xam-xam bi dañ si dee am kontaante ba toog dañ ibi salon dañ bëgg nga ñëw defal waa defal ñu antifaatu dañ ibi salon dañ ñëw pour nga defal ñu ñaan ak yooyu waaw loolu moom toujours ñu am ko bu pour nga liggéeyal nit sa daf ndig dang dee gëm na ndig man dama dee jàngale entrepreneurship ku dee defal gars yi fa benn projet with UNDP day dem contribuer di def loolu noonu soo yaa ngi gis ne xale yi dañ dee gëm sa bopp dañ dee jàngal ñun tamit fii naka nga mën a taxawalee sa bopp pour gëm sa bopp a dem suñ jeexalee li ci ëpp ñun ñu fee liggéey ñëpp képp koo waxaat fii la jàngee ñun xale buñ jeexalee ñun dañ dee jël li gën a mun indi leen ñu liggéey si school suñ liggéey ñaari at ñu dimbale leen am seen place yi boppam ñoom ñu dem mën a dimbale ñeneen school pour cent bi yëpp si ñun lañ jàngee xanaa bu ñu defee skill bu ees dañ a xale yi jàng ko mun ko at beneen at bi ñu doog leen si ñun yëpp fa fii lañ jàngee ba pare teg si tamit suñ jeexalee ñu bari leen di am seen place bopp ku si am sa place bopp ñu dee dem dimbale la ba nga setop dimbale la nga jël xale yi nga xam ne ñu fi tamit te mënuñoo am place ñu liggéey ak yow Gënjoor daal famille la loolu famille lañu woon xale yi moom lañ dee def ku ci jeexal yi tamit ki nga mën a jàppalantee sa morom jàppale sa bopp a liggéey. Gaye Njoro la comme yaa ngi fi di dimbale xale yi ba tey ñuy laajte tamit anti faatu ndax yow fu mu nekk xale yi nekk si biir school bi nii ndax ñoom suñ paree liggéey bu ñoo def nii ndax seen kër da nga leen day advice ñu toog seen kër yi continuer métier bi ndax ñoom suñ jógee si school bi rek pare nañ si liggéey bi wala naka la demee. Gaye Njoro am nañ ndam lu baax si li ñoo def xale yi ku si jeexal tey school loolu mu ñoo won na ñun li ñoo def ku bugg a mel ni Gaynjooro rek yaa ngi ñëw jëlaatee Gaynjooro bon suñu xale yi duñu leen di bàyyi ñu taxawaal wala ñu dellu ci leneen ku si jeexaale di nga topp sa métier def ko ñun duñ dee def métier bi dañ def métier bi pare aat ci yeneen dinañ def création soo gisee yi xale yaa ko defal si seen examen yi yëpp xale yaa ko dee defal seen examen pour aat value si lu ñoo def waaw pare comme li ma la wax Gaynjooro ndam bi léegi ñu ngi koo gis liggéey bi ñoo def ñu ngi koo ko ràññee bu baax léegi last year am nañ World Award award bi mu ngi nële soo paree mën nga koo jël last year amee woon award pour recognize ñu on social social bi mooy yaa ngay jël ay xaleel wéy seen xalaat jox leen jom bañ mën a taxawal seen bopp soo am nañ award boobu Kenya last year UNTAD ñoo ñu ko jox United Nations on Trade and Development dañ taanoon junee jigéen ak fukka benn soo léegi bi ñu demee ba waañi waañi ba mu des fukka bi ñu demee ñun ñu bokka si ma bokka yàlla def ma win award bi waaw dis yooyu tamit Gànjoor amati na yeneen ñaari award waaw benn bi mu ngi nii bii tamit ba léegi gaay paa ñu ko jox social award la bii tamit beneen award bu ñu jox la yëpp ci benn weer bi julaay june julaay june thirtieth lañ am bii julaay fourteen lañ am bii for youth empowerment te loolu mu ngee wane ne liggéey bi mu ngee dox te nit ñaa koo gis comme li nga wax ñu ngee gis li ñoo def te ñu ko apprécié te ñu ngee ñaan ñëpp ñaanal ñu rek ndax mënuñ dara dañoo jéem rek pour li ñoo def éene la rek ak yaakaar bu nga jàppale xale yi ndaw yi ko leen jàppale rek ëllëg di nga yaakaar ne di bi dina mën a taxaw ni ndaw yi ñooy dem bi ëllëg léegi su suñu leen mënee jàppale loolu dina mën a am di ñaan ñëpp nañu bokk si jàppale bi nguur gi ne dañu dee jàppale ak bu nekk dafa farafene school bi xam ne ne kooku am fa xale yi ñu mën laa fay school fees métti na te ministre yi bàyyiwuñu especially am um, higher education bi nga xam ne ñoo si ay ndaw pour ñu jànga si school bi farafene last year support nañ 150 xaleel Farafenni this year last week rek fayalaat nañ 100 xaleel pour Farafenni so no mooy nguur gaa ñoo japa bu baax te school bi Farafenni bi ñu ko ubbee tamit UNDP ñoo ko ubbi ñoo ñu jàppale ñu ubbi ko ECOWAS bi ñëwee si dëkk bi tamit ñoo leen jàppale ñu pour school bi mën a dem Gamworks tamit indil nañu ay jigéen pour ñu train leen ñooñu dañoo leen train waaye fa lañ dëkka di jàng ñaw jàng cuub ak yëpp am nañ bi am si ko ñu am juróom I am ak ñeent boobu man ñu ngi maa jàppale Come no comme ni ma la ko waxee du dara amee sax loo xam ne jigéen war na cee taxaw dañ dee def lu ñu mun yóbbu ma boobu mel dañ maa yóbbu Amérique pour ma dem atteindre ay meeting bu yàggul nii rek àndoon naa vice président bi dem Amérique atteindre ay meeting ba pare laa si itam àndoon naa jabar président bi dem Morocco woon ne ndegem maa ngi jàppale xale te jigéen laa maa ngi a taxaw dooleel pour loolu mun a ma si anglais conducive liggéey jox nañ ma foo xam ne mun naa toog dal liggéey am dara ba pare farafeñe may nañ ma fa suuf pour ma sampa waaw loolu yëpp si ndimbal la waaw ba pare am na yeneen place yoo xam ne géej gi waroon ko ubbi si septembre dinañ dem beneen région ubbi ko waaye duñ ko wax léegi bañ fa aag. waaw comme loolu important la ndax Géejooro diggante Farafeñe ak Banjul man si yu ma xamagum Farafeñe moom xam naa fi ngeen nekk parce que dem naa